dama koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan wi sergent mais respect nuyu naa la bu baax aouzu billahi mina ne rajim aouzu billahi mina seytaani rajim aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim Sénégal maa ngi nuyu képp koo xam ni yaa ngi toog di ma déglu ak nga bañ ma dégg sax maa ngi lay jot li sama nuyoo

booba Koweït dafa frontière oo xam ngeen ak Irak Koweït jëloon décision bëgg a yokk li muy am ci pétrole mu ni dana exploité ay teen pétrole yu nekk ci frontière am digganteem ak Irak fekk na zone boobu Irak moom sax doon wax nan maa ko moom waaye bi Koweït jëlee dogal di ko exploité quelque mois après Saddam Hussein accusé Koweït ni ko kat yow mii yaa ngi sàcc sama pétrole ndax nab bi ngay màngay say teen ci sama suuf lay jóge kon da ngaa sàcc sama pétrole loolu jur coow lu bari Irak mujjee attaque Koweït ak ay soldaaram déclenché guerre bi daanaka minute néew wala heure yu néew ci la soldaaru koweïtien yi daanu ci loxol irakien yi ndax ëpp na leen doole émir bu Koweït jamono booba jël téléphone am woo président Bush bi nekkoon booba njiitum réewum États-Unis ñaan ko ndimbal ngir man ko muccal ci attaque bi ko irakien yi attaqué président Bush tam daal di woo ay réew yu bari ñu fàttali leen trent 35 pays ñoom la président Bush woo woon nga ñu war a former coalition bi nga xamante ni bi ñooy dem libéré Koweït ci loxol irakien yi réew yooyee Bush woo woon Sénégal bokkoon na ca Abdou Diouf moo nekkoon boobu ci bopp mu Sénégal ci la jël dogal envoyé 495 jàmbaaru Sénégal ngir ñu dem ca Koweït ñu bari ci ñoom nag soldats yooyu ñu nga demoon ci Arabie Saoudite ca frontière ak Irak ngir kon man fa saytu li nga xam mooy kaaraange loolu kon ñu ngi nekkoon jamono boobam 2 août 1990 guerre bi déclenché wu na ñooñee nag ngeen gis ni tey ñu leen di wax jàmbaar yi Sénégal yi nekkoon ca guerre golf bi kii ñu jàkkaar loolu ca la bokkoon muy sergent Ibrahima Makalu Cissé sergent mhm. def naa historique bu ndaw lan moo la ci gën a marqué ci li ma def comme exposition Eh, li ma si gën a mooy man de ak ñi ma àndaloon ñoo ngi fi jóge le 17 septembre 1990. bien sûr premier vol boobu la fi déparé woon. bon non mënu ma wax premier vol ou deuxième vol mais man. ak mm-hmm. ñi ma àndaloon si je ma me trompe deuxième vol lay war a doon. Mm-hmm. Hmm? Eh, lañ fi quitté dem Arabie Saoudite. Mm-hmm. nekk Dahran. donc euh, tay li jangé dakhran mhm. bien vrai que maîtriser wu dama ko jappé comme peut-être bango parce que bango waaw noonu laa ko jàppee ni ko jangé parce que dama mhm. gis ni zone bu il y avait des élèves il y avait tout le monde hmm? mhm. et ñu nag yeneen corps yu bari aussi ñoo fa dajee woon donc avant ñu avant waa Arabie Saoudite parce que bi ñuy quitté fii je me rappelle très bien Babacar Gaye dajale nañ ñun ñëpp. Mm-hmm. ni ñu di ñuy dem dimbale ji suñu ay mbokku jullit. le Sénégal promettre leen dara mais kenn ku ne xam ne soldat booy dem am na liñ lay jox li daan IGO bon pour da bañ a dugg si tous les techniques. Hmm? IGO mooy tekk lan xëy na ki xamul armée. waaw dafa am loo xam du naan peut-être 500 francs par jour ou 900 francs par jour. Mm-hmm. Hmm? loo xam ne Sénégal peut-être 500 par jour le boo nekkee en zone d'opération peut-être 900 ou 1000 francs comme ça. Hmm? jëm journalier. voilà de heures, c'est ça c'est ça. Hmm? donc euh, yàlla def ñu dem comme li ma la wax bu ñu demee ñun daxaran lañ nekkoon. daxaran nekk nañ fa temps bu xaw yàgg tuuti parce que euh, dafa am lu ñu doon defal foofu li carte d'identité ak lu comme ko mënti tuddee ñu carte d'identité laa ko mën a

waaw lii sax ni ko waxee la carte d'identité la. <laughs> en tout cas ñun moom la ñu joxoon foofu sax ndax am na sa tur sa wala voilà sa âge. ak ak euh, aussi lépp lu ne mën a xàmmee. lu ne mën a xàmmee. Mhm. ak aussi ñu la. Mhm. di temps au temps lay jeex. Mhm. Hmm? kon joxoon nañu ko. Euh, rumeur yi bari woon na. parce que ñun ñu dañu fa nekkoon ak ñeneen. ñun système ñun système américain la ñuy fayee ñooñu ñoo ngi leen doon fay chaque le quinze ñu fay leen. et ñu nekk si le nekk si loolu ba yàlla def guerre bi jege si ñu dugg septembre à la wax dem. Mhm. Hmm? septembre octobre. Mhm. novembre. Hmm? ñu dem zone de guerre ba. ñu demee zone de guerre ba donc que euh, zone de guerre ba c'est côté guerre bi fa laa mhm. hmm? mais daal dem nañu ba guerre bi voilà guerre bi mi ngi tàmbali. 2 août 1990 ba 26 février 1991 juróom benn weer daanaka daal juróom-ñaari weer ci lañ ko mën a xayma départ nga fi 17 septembre 90 wàcc ngeen Arabie Saoudite hmm? opération yi tàmbali na foofu da ciy baax naam duñ dugg dëgg ci secret armée bi carrément ndax yéen la grande muette mais tamit du ñàkk sénégalais bi saxul naa xam tuuti naka la sénégalais wàcce foofu ndax ku jógeem dëgg la Sénégal fii bari na désert mais néew na trop seen champ de tir yu bari nekk dooji dana nuroo xëy na ak tuuti Arabie Saoudite désert beeg suuf seeg ñoom seen mais naka la jàmbaaru sénégalais bi nekke woon ci théâtre d'opération yi foofu nga xam si mooy ci Arabie Saoudite metti woon na parce que comme ni nga expliqué mënu ma dugg tellement si détails yi mais ñi amoon sens seetaan ko gis nañ Abdou Diouf bu mu ñëwee foofu génne musaaram joy nga xam kon métti woon na. lan gis jaaxal na ko yëm na ko. parce que même Sénégal kuy fàttaliku mission bu ne am na fi. Mhm. mais pour la première fois si mission bi la ñu dégg la moo jàmbaar. Mhm. metti woon na foofu laa mën a ñu dégg la moo jàmbaar opération bi tuddoon booba. tempête du désert ou bien libération du Koweït. Oui. Moi, ñaari médailles yi nga gis ma tempête désert la libération du la libération la tempête du désert la bi ko jox bi et même bizarre, sax libération du cœur.

ce dañ daan filtrer pour ñu wane yëpp problème la woon mais ku ne xam ne daan dégg jamono booba ay doyen nekkoon ci presse bi ay Margaret Thiam ay ñoom Mame Less Camara euh, daan def booba journal dañ daan dégg ñuy wax missile yaa ngi naaw euh, bal yaa ngi tàkk bombardé naan am na ay nga dégg ñu ay bouclier anti missile nga xam ne kon xeex bi métti woon na Irak am na booba trent cinq pays ñoo doon xeex ak moom mais du ñàkk foofa li tax ñu tudd dëgg ni Sénégalais ay jàmbaar am na lu tax ñu tudd leen ay jàmbaar seen turu jàmbaar feeñ est-ce que foofu am nga fa benn bis boo xam da nga ko dund nga ni ah tey de jàmbaar bi tey tiit na bombardement am na ay jàmbaar tëdd nañu njàqare amoon jamono booba wala déet. ok euh, ñun soldaaru Sénégal yàlla suturaal nañu ñi jeexal ñi fa mës a dugg ak ñi fa des yàlla suturaal na leen. Mm-hmm. loolu moo jàmbaar du hasard en âme et conscience. Mm-hmm. dugg naa fa ba jeexal dafa trent cinq ans mais damay jaa jëfal bépp soldat def naa ni tiitukaay amuñu ko mhm. mais nag eh, dinaa la si jox benn bu ndaw rek mhm. Mhm. buñ ne à minuit le bombardement yi war a commencer entre dix-neuf heures vingt Abdul Aziz si a yalla le parce que zone yi du ñoo hmm kon zone bu sene la ni la Dabakh Malik ni ñaan bi na mm-hmm. mon ami je vous dis ouais effectivement les pays mais après ñaan bi non sénégalais bu karaw buñ ñu won sax nañ dem jàppi sadam peut être mënon nañ ko jàppi ngeen am benen taxaway courage et pour te dire zone bi ñu mo doon zone pétrole bi gënoon reuy tek bo tuddee ñu ne bo dégg ñu ne golf parce que golf bi lool mhm. c'était entre l'Irak l'Arabie Saoudite et ouais Israël et Koweït Koweït aussi ouais hmm parce que ni mu defo ni mo tudd mo le mot golf mo tax mhm. ñu ci won ko golf bi mhm. pétrole bi gën reuy pour Arabie Saoudite fa la ne aussi Nous avons pour garder aussi. Saddam a envoyé un missile du Doudia. Mais il missile qui a fait Je suis une nuit de passage. Quelle heure le missile Je ne sais exacte, mais je sais que c'est Peut-être entre 0h, 2h du matin, 3h du matin. Je suis une nuit de passage. Elle a Abdounia. Mhm. Il y avait presque 6-7 blessés comme ça. mais moo si gënoon sonn. Mhm. ba moment bi may wax ak yow ni sax li ma mujj am mooy dafa est-ce que waru waruñu ko opérer. kon mu fi mu toll nii loolu ko topp. El Hadj Abdou lii ñu daal ñun daf ñuy topp ba bu ñuy dee. loolu dañ dañu si ñëw léegi. misil bi daanu na jàmbaar yi ba tey wala seen jàmbaarte. waay yàq-yàq yi bari woon na. waay comme li ma la wax rek amoon nañu chef yoo xam ne macha allah. soldats aussi machallah. Ben point bu ndaw rek moo si ne. ci ñëw ci point bu ndaw bi. merci. une situation bi nga nek tay. déedéet eh, eh, pas situation bu nek tay. Mhm. Ben point moi si dama ni la soldats yi foofu macha mhm. suñu chef yi nekkoon non machallah. point buñu fi amone bi politiciens ñoo ñu ko tegoon. daañu ci ñëw ba tay ci champ. ñu ko mën a waxee de tir bi wala théâtre bi nga xam ca ngeen nekkoon opération yi buñ ci xawee doxal tuuti avancé mooy day firndeel ni kon mbir mi metti woon na jaxasoo woon na ngay nag njàmbaarteem ba nag ñu àgg ci 26 février 1991 mu mel nag leen guerre bi jeex na lu ngay yëg jamono boobu bi déclaré que ni yéen force yi coalition bi nga xam te ni bi George Bush moo doon commande ni ma ko mën a waxee mu nekkoon commandement bi ndax mo doon ko jité ak ñamu àndal ni ay alliés bin ñu annoncé ni bi jeexna lan la Sénégal bi ñika xalat lan la Sénégal bi. ñika xalat jombul moy ñibi ci wat rewam effectivement bi guerre bi jeexé Sénégal bu ci ne sa xalat mo doon ñibi ci réew mi mais comme limu la wax ne bi ñu nekké won daxaran ñu defal kadante ñu nekkoon ak suñu yeneen nawle xamoon nañ lu leen doon fay. te kaddu gi benn la woon. ay millionaire ngeen di doon. kon kenn ku ne yaa doon xaar. ñu jox la sa xaalis nga am loo indil sa waa kër. comme ni ma amee habitude di ko wax. Mm-hmm. armée di ko wax. on nous mais on ne nous déshonore pas ñun amuñu lu mooy suñ njaboot. soldat ragalul dee. soldat bañul dee. mais de grâce mu dee ba pare nga toroxal ko toroxal njabootam. Mm-hmm. rafetul. yàkkamte gi amoon na bëgg a ñëw Sénégal lépp yi dox ci normal aw ci yoon ba guddik alxames ay booru quatre heures quarante cinq minutes am na lu xew booba ñu ngi ci 21 mars 1991 boobu date xanaa doo ko fàtte mukk balaa may egsi boobu bi lépp jeexee comme ni mu la wax ne ku nekk yaa ngi xalaat noo ñibbisee mm-hmm. ku nekk yaa ngi xalaat loo indil sa kër coow yi daf ni kur

ñoom nag dañ def seen këmte lay kàttan ba dina am lu ñëw pour ñu mën a sax boog am lu ñu jënd bu doon jamono ay seru daa xew sax book mën ko indi si waa kër diggante boobu ñu toog di xaar man diggante boobu si laa dem umra yàlla def li muy def comme ni nga ko waxee voilà ba tey li nga wax dafa am lu ci aajal leeral tuuti bi ngeen paree war a ñibbisi toog ngeen ni sunu xaalis dañ koy jot avant ñu fiy jógee. waaw ay kilifa ñëw ni am na kilifa gu jël xaalis bi yóbbu Sénégal. entre état ak état. entre état ak état kooku kan la. Euh, damay bañ a tudd tur mais moom xam na kan la képp ku tegoon sa temps yi si contingent ba xam nga kan la maye ñooy suñu kilifa ñoo ñu yóbbu woon ñoo ñu jiite woon ñoom ñoo dajale bâton bi yëpp parce que coow commencé woon na bare. kooku lu nangu boole si sax ñu boole si sax nangu munitions yi parce qu'on a un âme et conscience c'est un la xëy na wala peut-être renseignement je ne sais pas xëy na le peut-être dara am. kon dañ non pas des ça mais les munitions il fallait que nous disions que parce que guerre bi jeex na. soldat boo munitions, munitions mu defee ko. <laughs> mais guerre bi jeex il fallait que. Ah, ah, ah. mais kooka ki doit nous ak ban responsabilité la dans l'armée. kilifa faut général. non qui la woon <laughs> dafa la mën parce que ñun ànduñu woon ak général.

après quelques mois ay vingtaine de qui vous vous mettre à ak Habib à Nous fekk à l'hôpital il de ci Je bi ma ministre d'état la ministre à premier ministre premier ministre régime président Abdou merci Nous ñëw à l'hôpital mhm, mhm. Hmm? donc Eh, bi avion bi daanoo. waaw avion bi muy daanu bëgg nañ tuuti ñëw tuuti ci li xew. bi ngeen di waaj ñëw ba pare donte coow amoon na ci xaalis bi dañ ko jot a ko jot ba ngeen trouvé déggoo ci seen biir da ngeen amoon avion bu jëloon ay nit ay soldat ni yéen yóbbu leen umra loolu waa Arabie Saoudite ñoo ko def mel ni ku leen bëgg a delloo njukkal ngir ngeen dem ziyaari Makkatal Mukarram dil siwaat soog a ñëw Sénégal loolu euh, après guerre bi ba mission yi que am un an tant de mois da nga am parce que da nga un njaboot Nous hmm? mm-hmm. jox la benn somme nga dem mais comme nous sénégalais lañu ku ne xam Sénégal est mm-hmm. ah, <laughs> ne wala mm-hmm. Medina. et ko gën aussi l'on la ah. c'était que nous sommes hein mhm. ñoo sur suñu base donc vol yi bare mais man avant dernier vol la jël avant dernier vol mo doon euh, moy vol bi bi Hercule c'est 130 numéro 467 cent soixante de l'air saoudienne bi bi Transal non Transal bi mais si vous mhm. ñun bi quitté télé quitté parce que sept heures dina fekk ñu quitté zone bi ñu newoon Safaña pour dem wàcc Jidda Jidda nga dem Màkk Jidda ak Màkk dafa mel comme Dakar ak ak Thiès. Mhm. <laughs> vingt cinq kilomètres yooyu du ko passé ah si diggante bi la ne bi aj Màkk di neex si ñu koy dégg si suñuy waajur ak yooyu. Mhm. duñ doon wax naa kenn mënu dugg Màkk te jaaroo Taïf. Mhm. donc ñun Jidda ak Taïf. avec des guides saoudiens ay chauffeurs saoudiens du ñëw réer waaw en tout cas daal réer nañu foofu ba weeru koor la woon ba presque bi heure dog di waaj jot la ñu egg Taïf loolu techniquement taxawal tuuti foofu techniquement en tant que militaire ndax sa xel dal na ci réer la wala déet ndax bi ma gëstoo pilote bi n'est nekkoon commandant avion bi dafa am expérience nekkoon na ci euh, ñu waroon Roi Faye xam-xamam ci wàllum aviation euh, ba ñu indi ko mu nekk ci armée de l'air bi diggante boobu naka la fi mën a leer ndax gëm ngeen ni exactement réer moo am. bon ma ci avion bi maa ngi nekk comme si bu ñu ñëwee ba atterrir Jidda. Mhm. war a jël oto ay biis pour dem Màkk. oto bi moo réer foofu. oto bi si boppam diggante mhm. Màkk ak Taïf. Mhm. parce que de

mais entre Jidda ak Makka yëpp amu fa ngeen réer suba ba ngoon. ñu réer presque de quatorze heures ba presque dix-huit heures heure dog presque mu ñu fekk Taïf fa la ñu armale dugg Makka. ndax booba sa xel mi ngi tàmbali teey. non en âme et conscience comme li ma la wax soldat bu dee mission du xalaat yëpp ñun duñu xalaat tey de ñun benn rek benn problème la ñu am. Mm-hmm. mooy suñu njaboot bu ñu bàyyi gannaaw ngir yàlla état. suñu njaboot ak mooy suñu papa. ok réer ngeen mais finalement def ngeen seen armal. ñu ak dem ngeen aj finalement dem nañu def suñu armal def lépp. Mhm. tawaaf nañu daw nañu safa ak marwa def nañ lépp ba lépp jeex. ñu génn bu ñu génnee ay côté vingt une heure comme ça entre vingt une heure vingt deux heures. Mhm. ñu dugal ñu si benn restaurant. non avant restaurant dañoo jaar si benn sob mhm. ku nekk di jënd ku yoroon weccit mais. sëriñ jidde daal laa si gën a remarque yu bari nga xam ni kon soldat fonk na soxnaam. am na ñu si jot a jënd ay maillot pour seeni doom ñi si yoroon xaalis ku nekk am na loo jënd. bu ñu paree ñu dellu base ba dugg si benn restaurant war a reer. kooku man deux jours avant may dem Arabie Saoudite dama taxaw si tali bi boobu maa ngi logé yëmbal ci Thierno Ndaw. ku ñuy wax capitaine Moussa Dia fekk ma fa ñu nuyante mhm. hein eh, yàlla def bi ñu bi ñu demee arab fu ñu nekk donc euh, amoon nañu yenn kii tuuti hmm? donc bi ñu reeree ba pare ñëw rang maa taxaw si kanam rang bi avion yi war a mat ñetti avion yi taxaw mais benn avion bi la ñuy taal mu ralenti pour ñu dem dugg man dama ñëw rek dugg rek gàddu sama saag rek ñëw rek dugg rek toog moom mu fekk ma fa hmm? ne ma eh Makalu yaa ngi doog kii doo dem tout à fait à euh, comme ça gars bu ñu ñëwee rek day kii ma gàddu sama sac comme que transat la xam nga transat gannaaw gi day kii. Mhm. ma ñëw teg sama sac àddoo rek tëdd si kawam. ñëw dugg toog. yaa ngi ci biir avion bi boobu. maa ngi ci biir avion bi. Mhm. gars yi ñëw dugg. bi ma toogee noonu euh, benn élément bu intenance bu ñu wax Pape Ali mhm. ñëw ne eh, xool sama boy bi toog à droite ku ñuy wax About Fall ñëw à ma kii taxaw femme bi nii la veuve la mhm. jëkkëram aussi ñëw fekk ñu fa ñu ñun ñeent ñu tëgg waxtaan hmm? fa lay nekk di waxtaan weeru koor la ba ñu profité xëddaat foofu affaire yëpp hmm? comme que weeru koor la avion bi jóg na ba jël altitude normal mhm. fa la ñuy waxtaanee ba may nelaw ba man ni ma nelawee mhm. après vingt cinq jours yooyu laa yeewu à l'hôpital bi nag dafa mel ma tëdd léegi yeewu léegi

coow daal xaw ma woon sax ay journaliste lañ mhm. mais bu ñu ma nettoyé docteur yi ñëw xool ma wax këran këran affaire après si lañ dugal gars yi un journaliste de BBC moo njëkk ñëw si man présenté wu ba pare wax ma li xew wax ma accident bi moo la informé kon moo ma informé naa ko posé def na benn question ñaari question ñu nekkoon sama wet gars yi pikiraat ma ma nelaw mu doon lu yéeme lu yéeme lu yéeme ndax da nga demoon représenté ji sa réew wala ñu bisiwaat namu sa njaboot jiyee ji am ni nga ko waxee sàngu ñu tàmbali soldats le Sénégal envoyé woon ñëpp pare pour ñu bisiwaat ci jàmm waaye yéen seen vol muy benn avion bu armée de l'air saoudienne moo am crash mu am ca 93 personnes yu faatu juróom-ñeent fukki nit ak ñett ña mucc ñetti soldaaru Sénégal lañu yeew ci ñooñu la bokk. Ibrahima Makalu Cissé muy man Ibrahima Biaye ak Mamadou Sané am nañu beneen grave blessé mais kooku missile bi moo ko dal Mamadou Niang. missile moo ko dal. waaw mooy missile dal na fa. bu njëkk ba waaw. moo moo ko dal. Mhm. mais si avion bi on est trois rescapés Ibrahima Makalu Cissé Ibrahima Biaye Mamadou Sané. muy lu yéeme. waaw muy muy lu yéeme. lu yéeme après bi accident bi amee ba lu ñëwaat ci problème bi nekk nii ak mais ndax enquête am na ndax tamit euh, crash d'avion bu amee enquête war naa mën a am ndax jamono booba finalement yëg nga ne enquête na ba rapport génn na ñu établir que ni lii moo tax avion bi am na wala amut. Euh, jamono boobu comme li ma wax temps bi ma nekk à l'hôpital ma ciy gërëm de passage mbëggee Thiam Habib Mbeng Ndey Uli di soxna Habib Mbeng parce que mën naa ni bu doon état Sénégal dina metti si man lool. Ah waaw. état Sénégal taxawuloo nga bëgg a wax. mbëggee Thiam képp kuy sénégalais foofu moo la informé ni la maa ngi hôpital. mbëgg caam bu wàccee liggéey quatorze heures si man lay nekk ba heure visite jeex boobu ana ambassadeur bi nekk Sénégal Arabie Saoudite eh, ba nim di ma gunge di ma gunge ba ma mën a commencé lekk ndey uli bii ma la wax mhm. ak ñeneen ñu mel na moom damay dafa am ñoo xam damay fàtte Nyomu don togal doon toggal di ma indil di ma gunge bu muy jeex ambassadeur ambassadeur bi xam kañ la gisaat mhm. keroog bi samay parents di sama papa ak sama grand frère parce que moo jëloon sama place ya parce que sama yaay dafa feebaroon mhm. ñëwee mak acci and ak délégation bi ci woon Sénégal ma ngi tëdd riyat ñom ñu ñëw acci dañoo naroon ñibbi si Sénégal te duñ ma seet si. Hmm? loolu naka la mais dama insister parce que am na ay xarit yu newoon foofu ay officiers supérieurs. Hmm. ñëw nañu ba Jidda pour ñibbi si Sénégal si la ñuy doog affrété benn avion mu ñëw ñu ñëw seet si ma Riyad jour gis naa ambassadeur bi. jour boobu. ak jour bi ma ñii di seet si Ablaye Wade ak Habib Thiam. ak man jour bu may ñibbi si dem di ko tàggu. mais am ndimbal sa diggante moom walla déggoo dama ni ñetti yoon laa ko gis nekk naa hôpital ba ma commencé lekk yàlla ak mbëggee ci am Habib mbeng ak ak si Burundi. Mm-hmm. ak Ndeye Uli parce que Ndeye Uli mooy soxna Habib même bi ma demee ba wér. ñu loger ma euh, saoudien yi jox ma hôpital benn hôtel néeg hôtel pour ma loger foofu en attendant may ñibbi si di dem di defi sama sama kii euh, exercice ak yooyu hmm? sax loger wu ma foofu kër Habib Mbengue laa loger jamono boobu kan moo nekkoon ambassadeur u Sénégal foofu ci du nom de Thiam Thiam nan Thiam hmm. fàtte nga tur bi xëy na fàtte naa tur bi mais je sais que ni mm-hmm. ay dara laa gënoon bari di gis Mhm. parce que jour bi may xuloog ñoom. Mhm. kenn ku ñu wax ay dara. bi ngay xuloog ñom waaw bis xuloo naa. da nga dem bu xuloo ñom finalement. waaw parce que dañ ma indi sama chef conduite ni ma ah. suba ngay ñibi senegal chef conduite. ak presque sama poids bagage yu ñu ma c'était 30 kilos. ma ni ben bala may ñibbi Sénégal mhm. damay makka hmm tàggu ji dem mhm. Medina si le fo tàggoo ji té man sama bagage ëpp na li ngeen ma may mhm. keroog de ànd naa ak ay dara dem ba ci mudiri bi manam directeur aéroport bi hmm dugu dugg see mun Ibrahima kes SSC. ma expliqué ko dafa xotti fooy bi moom ci moom ni ma léegi loo bëgg ma ne que li ma bëgg mooy jaar jiite d'abord parce que damay dem Màkka ak Medina bu possible ziar ba pare doo ko ñibbi mun ma ana say bagage ma ne que lépp a ngi néeg ba mun ma da nga bëgg ànd ak moom wala da nga bëgg mu envoyé ko Sénégal ma ne que su ma mënee jiitu sax ma jiitu kon kooku def na li waroon def à la place que autorité sénégalaise yi ñoom defuñu ko. defuñu ko léegi laaj naa sànq ni la enquête ndax amoon na booba ñu tëj page boobu après ñëw na ci li nga xam mooy mbirum ndàmpaay yeeg fi ngeen toll tey ndax enquête amoon na ba ngeen yëg ni avion bi lii moo ko daane ndax man dama gëstu mais dégg naa ci version yu bëri am ñu wax ni missile irakien moo bombardé avion bi ba tax mu daanu. ndax la ngeen doon xeex ak ñoom ba tey bàyyiwul leen woon est-ce que enquête amoon na wala déet yow en tant que. ma yokkal la si beneen sax <laughs> à part missile bi. Hmm. ñun dégg nañ ni sax njabar am na si. parce que nag bu daanuwul woon. Hmm. est-ce que soldat Sénégal daañu ñibbisi te jotuñu seen xaalis te xaalis bi ñëw na Sénégal. mais bi avion bi daanoo la moral troupe yëpp damm kenn ku ne ñibbisi rek nga yàkkamti woon. boo ci gën a jàpp missile wala wala wala version njabar gi. Euh, wax dëgg yàlla man mënuma si wax lu bare parce que dama doon nelaw xanaa la après bi ma yeewoo à l'hôpital rek. nga xam li xew laa xam li xew. même même matériel bi. Mm. ñii bi ñu ma seetee Habib Thiam kii dama li mooy benn plaisir laa si gën a am mooy matériel bi ñu yore woon yëpp yóbbu nañ ko Sénégal donc tout Sénégalais. Mm-hmm. boo mënee liggéey matériel bu day mu ñëw sa réew da ngay kontaan. alhamdulilah euh, enquête déggoo ko fenn moom ci rapport dégguma ko fenn mosuma ko dégg te fii Sénégal sax vélo wala soc benn soc bu amoon sax di dégg ñu ne enquête je pense que avion boo National Geographic lay lay seetaan da euh, da dégg ñu naan boîte noire ak enquête lii suñu cas bi mosuma ko see dégg déjà kon juridiquement parlant problème mi ngi tàmbalee am faay am na foofu avion am na crash am na ay nit faatu nañu en tant que avion militaire tey enquete amul pour yow. ah dégguma ko fenn. dégguma ko fenn te bu amoon da ko war a. amul benn Sénégal bu mën a taxaw ni dégg nañu ne enquête. voilà léegi foofu la problème yi tàmbalee ñëw ngeen Sénégal quatre cent quatre vingt jàmbaaru Sénégal doon doon seen ay ndàmpaay ginnaaw ban tey la seen bakkan ba mucc war a ñëwaat seen réew ak jiyee ji am yépp léegi nag situation bi lan la ndax gis nañ ni trente ans presque après. vingt sept ans parce que vingt sept ans. Mhm. bientôt tam tam mata ci ba tay yere ngi daw ci sunu ndampay lan mo xew deg na ñi wax ni ba ngeen ñibise amna lu leen jox ñi ni mo nekkon ci ndampay ci guerre bi ngeen joge ñi ni dedet sunu xaalisu congelé won ñi wax leneen yow en tant que ku ci bok acteur jamono bobo loo mën wax situation bi ngeen toll ak mbirum ndàmpaay yi li ma si mën wax moy ci turu 495 jambar yi demone moy que li ñu warloo ak ñun bien lu Arabie Saoudite warloo woon ak ñun mhm. ak Koweït ak Nations Unies parce que ñett la ku ne xam na ni bu ñu nekkee foofu saoudiens yi duñ ñoo jox xaalis après la wax indi nañ ko Sénégal maa ngi fi benn papier mhm. buñ la wax ni la boobu ministre bu jigéen moo fi nekkoon affaires étrangères Euh, bu Sénégal ak ministère intérieur euh, ñoo ko signé. waaw boobu mm-hmm. ministre bu Séné bu jigéen moo nekkoon Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. te mi ngi fi ba léegi ñu koy dégg mu ñuy dégg. waay de dollars la. trente ñu ngi bu jigéen moo fi ne woon. cent cinquante millions de dollars. anamu. Hmm? anamu. <laughs> anam ana cent cinquante millions de dollars yooyu. Hmm? Euh, ñun kenn ku ne.

président Abdou Diouf mu yebal ay doomam ñu bari moon faa des yàlla dim leen ba ngeen ñëw kon seen àq seen yelleef moom ku war a défendre la ndax moom mooy euh, responsable bi nga xam tey mu leen envoyé foofu en tant que chef d'état moo tax man lii xew daf ma jaaxal sincèrement bu ngeen ne cent cinquante million de dollars ñii ni ndàmpaay gi ñëwoon na ku ne jox nañ ko un million francais CFA jamono booba moo doon ndàmpaay gi def ma jaaxal un état naka la mën a tege lii ay doomam bu fekkente ni lii am na dafay doon vraiment injustice totale boo xam man def ma jaaxal sincèrement. man mi jaaxal na ma da nga ne état nu mu mën a xoolee njabootam. waaw borom kër aussi bu demoon xeexi nan la mën a xoolee njabootam. Mhm. mu mën a toog ne la def naa trente cinq ans aw ma kër damaa luyee fii nga ma fekk nii et bu duloon accident bi ma am ko. parce que bon accident bi meuna am yenen 5 missions wala 10 missions té ñukoy santé nak ablay wad képp kuy soldat du sénégal mhm. parce que bon lañu soldat pour demati mission bo ñëw nañ la fay minimum 5 millions té nañ la ko joxé aéroport mais moi, je suis là, je suis là, je Avant Abdoulaye Wad, nous sommes ici, Abdou Diouf moom fi nekkoon jamono booba 90 le mbir yi xew 91 nekk na fi moom ba 2000 parce que 10 ans après daf fay jóge ndax mas ngeen toog ak moom ci dossier bi en tant que président Diouf mi nekkoon bobo doon géré dossier bi nga xam moo soxal mbirum Arabie Saoudite ak geru Koweït bi. Euh, sànq am na lu ma la wax. Mhm. kon dama lay fàttali wax ji ma waxoon paaye rek. muy bi ma ñibbisee jóge Arabie Saoudite en 92 parce que man toog naa fa ba 92. jour bi may wàcc aéroport maag équipe bi gagné coupe d'Afrique bi ñoo wàcc ndaw muy Côte d'Ivoire mm-hmm. bi ma déggee paa yi def nañ seen association dama dem foofu parce que mm-hmm. duñ ñëwoon duñ may seet si ma ne comme kii ne kilifa bàyyi leen ma seet si leen ma ànd ak Adja bii ma dem mu won ma leen ma paa yëpp ma nuyonte ñoom ñëpp mm-hmm. mais ñu ma joxee parole dama ne leen est-ce que am ngeen avocat ñoom ñëpp ñoo dal sama ko Mmh. état kenn du xeexee moom pour fàttali la rek mmh. esprit bi Sénégal doon doxee démb temps Abdou Diouf waaw waaw mën leen noonu du pour xeex da fekk ni mit lu neen am na ku la si mën avocat bi dana la rek tegal si yoon jaaral nii defal lii defal lii mmh. mais système bu amoon bu yàgg moo newoon système bu doy waar xam nga sànq ne naa la yéen presse bi def ngeen fi lu bëree bëree bëree bëree nga may ma ma sant maam Maxtar kii bu Jamra ma sant eh, Assane Dioma Ndiaye mhm. sant tin maître Tine mhm. l' suñu avocat ji nga ñii mhm. ñii et eh, xeex injustice rek moo leen tax a jóg est-ce que xam nga ñoo ñuy jooyal fu ne dañuy dawal fu ne amul si kenn koo xam ne nee na leen daan la jox un

juridiquement merci li ma si intéressé nag ba indi woon ko sax moo doon dafa am bu ma si amal solo. moy te état yi fi ne ak yi nañ xel. dégg ni ans pour dossier bi juridiquement pour dossier bi kolo. maa koy waat si magros surillahi hmm. ba cent ans dossier bi du tëj. parce que keroog dama ne paa est ce que xam ngeen soldat bu demoon bu ne néew noo nga ñaari Mm-hmm. pour wax rek ni kenn ku si ne njabootoon nga wax xale yooyu du ñu màgg. ok te dèjà màgg nañ léegi. te dèjà màgg nañ. 30 après. waaw ñoon du ñu ami jabar. jabar yooyu du ñu ami doom. Mm-hmm. kon ñaata lañu léegi 495 jàmbaar. c'est vrai famille la. victime yi am na ñu bari ñu wàññeeku. Mm-hmm. Hmm? donc addina changé dañu xam ne addina changé na.

kon dinaa dem yeneen mission dem yeneen mission ba am kër comme tout le monde maa ngi sama carte comico ñu njëkk am carte comico si la bokk mooy yi wakaam yi na ko yàlla yërëm Tavares D'Assouza voilà un chef mutuel des forces armées moo ko fi indi mhm. comico moo ko fi indi mhm. et si njëkk ñu njëkk am carte si la bokk ndax mën na ñaa wax ni situation bi nga nekk ni yaa say moroom cent quatre-vingt-quinze jàmbaar représenté woon état Sénégal situation bi ngeen nekk tey lu métti métti état bu Sénégal moo ko teg maanaam état bi moo teg coono jafe-jafe ay doomam. sukkandiku si suñu bëgg-bëgg état bi dafa sukkandiku si suñu bëgg-bëgg xaw ma léegi. seen bëgg-bëgg moo doon. nu ngoo sol fa laa jëm xaw ma léegi mais ñun de par amul lañ ko doon defee. dugg ci armée sénégalaise dugg ci armée sénégalaise. ñu war leen a. par am renforcer war leen a dolli waaw góor. xaw ma léegi de mais ñun moom et je sais ba léegi sax ba suba sax parce que soldat non beneen affaire fierté la c'est que dafa ruslu rek. fierté mujjee nekk mi misère. mais bien sûr quartier bi ma dëkk ne presque maa fi gën a ñàkk vie li ma def si armée yëpp ak médaille yi ma am. Hmm? Grand Croix et valeur militaire. Hein? am heure bi ma wax ak commandeur la mais peut-être ñoo ko tey ñu jox ma avons un officier de l'ordre national du Lyon. c'est dans l'ordre de wax donc da ngay am chevalier de l'ordre national du lion officier de l'ordre national du Lyon. donc un commandeur man ñu jox deux fois officier. erreur <laughs> je ne sais pas. peut-être di naan maay wax et pourtant waxaguma lu bon waxaguma lu ñaaw et pourtant lima xam bare na nak ndax tay sergent ibrahim Makalu Cissé situation bi mu nekk dañu mëna wax tamit say responsable au grade de l'armée ñox ko tek aussi waaw euh, mën naa wax waaw mën naa wax déet waaw ci ban côté merci parce que léegi génn nañu Arabie Saoudite donc si situation Sénégal mhm. réunir mu ne dafa am muy Sénégal am lu mu les li mu tënkoo mooy boo dee veuve chaque weer lii la lay fay invalide ak lu mu mënti doon mo xam bu guerre la mo xam bu lu mu mënti doon li lañ la waral et mo waraloon fekk y'a ngi déggee son excellence président de la république chef suprême des armées bu mu ñëwee muy invalide bu né dina la jox 10 millions ak kër waxon nako dé ci ben wax indépendance ak message à la nation ma dégg ni peut-être yenn chef armée ñoo changé li mu bëggoon def aussi des glaces am mais daal armée est tellement organisée que kenn ku si ne danañ la jox li nga war jël donc man li ma wax en tant qu'invalide mhm. moi, ma ngi jot sama pension invalidité mu néew mu bare. Mhm. Macky Sall ne woon na suñu pension décret bi mi ngi fii ma yore janvier la waxoon ba tey ñoo ngi kay ba tey dara ba tey dara ci mois de juin ba jotuñu dara ah et à part pension bi ñu war la faj maa ngi dëkk Pikine mm-hmm. ou xam rendez-vous chaque mois nan lay def mm-hmm. hmm? sama carnet dem principal may gërëm bu baax nag docteur Dembélé ak ak sen secrétaire ak ñas c'est important parce que situation bi nga nekk ni nga jóge ci xam lu néew la ah lu néew la mhm. rescapé ci accident avion xam naa ni waxuloo ko ku la gis ngay dem ko gis xam ne nu soldat wa nga won xamone ci soldat ko xol xam lu bari jóge na ci yow mhm. du du mën wax lepp mhm. mais amna na sétane ko japp na ni yaa ngi en forme xëy na ginnaaw accident bi nga muccee loo ko mën a wax ba mu xam ni man mii maa ngi dund li ak li ci jafe-jafe ndax avion bu daanu yaram bu tas mën na caa jóge lu weesu tas moo tax ma ni la li may dund ak samay morom ak yàlla rek ko xam loolu indi ma sante docteur yi ma la sant léegi parce que su ma fi jógee quatre matin quatre heures matin egg ah mm-hmm. sept heures huit heures yàkkamti nañu ma ñëw ba ñu bindal ma samay garab hein? parce que mm-hmm. xam nañ ni damay dawaat encore xam fa lay daw Wakam. pour lan mm-hmm. pour nous signer ko. dès le soir, si sama pharmacie pour me a jël samay garab. da nga def tur boobu yëpp. dégg na li ma la expliqué léegi ñu samay chefu armée fan parce que amener na ñuy tricher am na ñuy sàcc am ñuy vrai militaire donne quelqu'un quelqu'un comptes, tout le monde paye mais on est plus des militaires. Ouais. si quelqu'un déconne, il n'a qu'à pour lui mais bu mu ñu loraale ñun. fi mu nii lan lay traité hôpital comme. bare na parce que man comme ni nga ko waxee sànq da gis ma toog nii <laughs> mais yàlla nag mooy suturaal jàmm. Mhm. hein mhm. ku yàlla suturaal kenn mënu si dal mais sama yaram yëpp dafa lakk fii dafa xaroon ba fii dama damoon ah. et bu ma la ne docteur Tabara kon nga xam ak euh, Dembélé kon nga xam ne psychiatriquement duñ may duñ may suivre ah bare na xam waruma te bi may jógee Arabie Saoudite pourtant du ñëwoon nañ ma loger nañ ma dugal fa am climatisation naay dem samay rendez-vous dara parce que aw mu mbokk politicien <laughs> mais yàlla jërëjëf merci bu boole ma ak docteur Tabara Sylla ak ak Dembélé Dembélé la du ma ñëwee ak sama coono nii rapidement danañ ma rempliral ak ñas ak euh, secrétaire bi ah sama moroom yu bare nag. parce que je ne suis pas le en ce cas ñu daw dem yaasho ñu viger la et puis ban monde la ne un médecin capitaine ou commandant ou colonel. Mhm. bind am keneen koy am looy xool si bind. Mhm. vraiment damay dëgër nii mais yàlla xam na ni sori naa trop. Mhm. bu ñu tolloo ci fi nga toll ni tey mu doon mbir moo xamante ne bii fii ngay dund njaboot gi nu muy dundee ak yow ndax yaa ngi wax ni ma euh, waxuma la euh, ñi demoon ci guerre bi ñëw ci jàmm nekkuñu ay rescapé ci accident bi am mais yow tey njaboot gi nekkin bi naka leen di yore ndax ni nga ko waxee ni war naa fekk tey nga am kër ni nga war naa ay soxna ci sa njàmbaarte nga dugg ci armée pour défendre la nation ndax yow da nga bokk njëkk a gëm njëkk a gëm ñi la patrie avant tout donte am nañu fi indi slogan la patrie avant le parti te man gëmoon naa ni buñ ko jëfé woon situation bi nga nekk dana changer say morom ndax la patrie avant tout buñ ko gëmoon dëgg defe ko situation bi ñu tonté ko def débat ni ma ak yow ok euh, balaa ma ñu ci question donc ma may tout rek parce que laaj nga ma sànq euh, say chef dans l'armée photo bële feu Amadine Fall il a beaucoup fait pour nous. Mhm. Alexandre Thiam c'est de major général de la marine. def rapport demandé à ce que état defal ma ko. Mhm. état defu ko. Hmm? Mhm. Euh, ma nekk ak ma nekkoon ak euh, Samba Fall général. kooku mën mon meilleur dans l'armée parce que Gambie le ma fait. ma nek garde corps. Eh, mu dajale ñu ba bu may rengagé ba may def sama stage ma def yëpp mm-hmm. yàlla def na moom jàppale na ma ak comme li ma la que armée sénégalaise dafa organisé wu mu néew mu bare mm-hmm. ñu boole ñoo ben assistante sociale bu ñu madame Bousso Ndeye ndak sen mm-hmm. momad elma beaucoup aidé vraiment hein mais man buma ma rek ci sama côté et lima ma na ma ni mom la ñëpp di dundé képp ko xam ne demal nga Arabie Saoudite jafe-jafe bu metti parce que boo toogee intérieurement yaa ngi xalaat sa alal ji nga di nga kii foofu nga toogaat est-ce que sax yow di ga mën a commander sa njaboot ni nga la ku mel na ko man du yomb est-ce que xam nga fi ma toog nii di wax ak yow nii sama yaram baa ngi tàkk ndax mais lakk-lakk moo mel noonu day tàng intérieurement day tàng intérieurement sa xol day tàng sa bopp day jaxasoo kon point boobu boo ko waxee il faut que ma profité. gërëm sama soxna bii di la jigéen. nga xam ne bi ma koy jël boobu cinq ans d'armée dong laa am kon def nañ trente ans. mu jural ma sama njaboot gi. tàngu ma xol compliqué wu ma de. ça se mais des fois ma def loo xam ne billaahi wallaahi dama koy rëccu. du yow. du man. situation la. voilà ngir ñëw ci président Macky Sall sang gërëm nga président Wad déggu mo nga gërëm Abdou Diouf ndax luy metti moo ko tek ci réñam en tant que chef d'état mëna dëgg fu dëgg wax fa dëgg fofu acca suma amone sañ-sañ le mot parti socialiste dootuma ko dégg sama dund mhm. té su fa mo woron dina jàll tellement que je l'aime tellement muy Khalifa Sall su fekkoon su ma ko waxee mu dégg. Mm-hmm. na changé tour parti social boobu Barthélémy Dias parce que léegi dama leen bëgg. ndax mas nga jéem a gis président Sall mi fi nekk tey ci bopp réewum Sénégal ndax moom xarit Abdou juuf la doonte fi mu jaar ak wàdd jaaru fa kenn ci homme politique yi waaye wane na xarit Abdou la te lii ci réunion président Diouf la xëyee woon. ndax waru cee solution est-ce que ngeen koo bind gis ko ndax dégg joxe ultimatum un mois sinon da ngeen yóbbu xeex di koy internationaliser ci gi Nations si Je neex mënoon nañ sax bañ def dara parce que sur papier. Mhm. bindu na si lamine. Mhm. dégg mu wax dégg na mu la wax sànq. Hmm. sànq dañu daan ni la patrie xaw ma avant avant le parti moo ko wax. Hmm. bi mu foloog léegi xam nga ñaata yoon la wax les invalides dinaa leen defal lii. ba tey yaa ngi koy xaar defagu ko. dama ne. mënoon rek yem foofu Macky dégg ko mu bind dafa neex mu wax dafa neex. Hmm. mais est-ce dina sotti nag foofu la mbir mi ne. def ngeen di xaar. bon est-ce nag bind nañ ko wala ñu ko dama ni. man maa toogoon TFM. Mhm. ngeen baal ma si fekkee waruma ko tudd. non ay confrères lañu. ak jaxate may nuyu sarla la de passage. Mhm. di ko xamal ne Sarr la maa ngi lay nuyu bu baax. je t'aime mhm. beaucoup. et premier ministre des forces armées woote fa. ni sa monsieur la bëgg naa ko recevoir. pour wan la rek ni la. fu mujj loola. waaw ma merci. pour la ne même bu ma binduloon. maam Matar binduloon. loolu rek doy na pour ma Sall xam la fa parce que ministre moom ma woon te woona ma ma dem maa ànd ak maam Matar ak ñi ma war a àndal. ba tey solution amagut. ñu jox ko dossier yi mu ni mi ngi koy jox président kon président xam na. mais nag attention de est-ce que ñoom ñu ngi def seen rôle ministre dëgg-dëgg. mais lettre bi des fois des fois ñu gis benn problème bëgg a jóg ministre da koy intercepter calmer ko recevoir leen. mais Mame Matar Gueye Mame directeur de cabinet bu bu bu bu bu kii bu bu bu Macky Sall recevoir na ko. mu waxaale ko. Mhm. maître Oumar Youm maître Oumar Youm maa ngi fekk lettre boo xam ne. Hmm? Mhm. Assane Dioma moo ko bindoon Macky Sall. Mhm. ni mu koy réglé kay peut-être wala ni mu ko dul réglé <laughs> la dul xam. Hmm. waaye kay yëg na problème bi. c'est état continuité la. waay bi ma dalalee maam Makhtar Gueye barki démb ci DTV ci beneen émission bokkul ak bi ñu def muy diisoo nee na ma moom am nan ay information yu leer que ni xaalis dugg na ci état bu Sénégal. bu leer a leer jëmoon ci. yéen jàmbaar yi nekkoon foofa ci Koweït doon dimbali ko jamono yi guerre 90 91. Mhm. waaye xëy alal ji dañ ko def faneen ngeen jàpp ni nag xeex jot na. fi lan ngeen nar a def juridiquement parlant ngeen jëf seen àq ndax nag lu jëf jot na ginnaaw de. merci bi nga ne juridiquement parlant parce que xam nga depuis vingt cent sept ans du deux jours. amul benn yoon boo dégg ni jéem nañu lakk suñu bopp amul benn yoon boo dégg ni grève de la faim def nañ ko wala ñoo ngi def fi wala ñoo ngi def fi. Mhm. donc euh, lépp si yoon lañ ko bëgg a teg te yàlla may nañ ñu mhm. comme li ma la wax sànq ay jàmbaar laa leen mën a wooye muy Assane Dioma Ndiaye muy Maam Matar mhm. muy Maître Tine def naa lu ñu xam-xam droit ñoo ñu gën a xam droit waaye lu ñu am bëgg-bëgg ñoom nañ nañu ñoo ñu ñoo ñu gën a bëgg donc lépp lu jëm si loolu Hmm? man ak les quatre cent quatre-vingt-seize jàmbaar dañ koy bàyyi si seen loxo. parce que lu ne am na ko ko moom. bien sûr ñun li ñu mën a def rek mooy. Mhm. yuuxu jooy ba ku dégg yaakaar ne mën nga ñu jàppale nga ñëw jàppale ñu te bu dee côté droit la it. Mhm. ñoom ngay àndal. njàpp njàppandal gi ak ndimbal gi kenn du ci jiitu njiitum réew mi moom mi nga xam te bi tey moo boole ñëpp jaboote. Mhm. peut-être dañuy wax dañuy lancer benn message à l'endroit du président Macky Sall bi nga xam tey moo yilif ñëpp lii na ko def du see boppam ndax it gàcce mënta wees ñu ni état bu Sénégal ay doomam ya demoon mission ca Koweït 90 91 ñu ngi dund situation bi tey gàcce mënu ko romb ci am réew kon nag comme que moom dafa ñëw yore réew mi ne ci bopp état Sénégal na dimbali ñii lu ñu koy ñaan la ca yàlla tax ndax mbir mi toll na foo xamante ne bi moom rek moo ci man dara moo ci man dara xanaa rek bàyyi la bu amee benn message. waaw message bi ma bëgg wax rek mooy. Hmm, yàlla daf ma booleeg ñaari soxna. Hmm? il faut que ma sant leen. Hmm. comme li ma wax sama aawo bi di lat jigéen. ak Fanta Traoré. mais di gërëm sama maam.

di nuyu sama fam yëpp. di ziar ñëpp ñëpp maa ngi leen di ziar di leen wax ni. sama gannaaw rek moom ma tax di jooy sama njaboot mais dee tey ak suba man lu ma dundee te bénéfice la am na sax kilifa bu ne ma bu motu ñu reylu la nañ ma reylu <laughs> amul importance man sama njaboot rek a tax may jooy. vraiment dañ leen di gërëm bu baax a baax. tey jàpp naa ni suñu émission mu suñu am émission bu mel nii yu ànd ak émission ndax yaram dafa daw jafe-jafe nit dund ko lu mel nii état seetaan ko nekk na loo xamante ni bii doy na waar waaye du ñàkk président Sall dina réagir ba situation bi ñu nekk mu war cee mën a taxaw bu dul leen solution ndax nag jot na kon mi ngi noonu suñu war a gor mooy def nii jox leen kàddu gi jàll information bi naam yàgg nay jàll président du ñàkk jot na ko mais nag gën a dolli njàmbaatem ci wàll gi kon gërëm leen incha allah ci beneen émission la leen jox rendez ak beneen invité ci émission diisoo gërëm bu baax suñu invité sergent Ibrahima Makalo Cissé ma war na mu wooyee sax ancien combattant bokk ci rescapé yu néew yi mucc ci crash d' avion bi amoon 91 bi ngeen jógee Arabie Saoudite wala ñibbi Sénégal kon Inch'Allah, bu zone de guerre zone de guerre bi kon mi ngi émission ci programme merci beaucoup. merci merci merci c'est vraiment gentil hein? merci merci merci beaucoup merci.